يوم الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam ngeen ni ci àjjuma ji weesu firi woon nañu daa iman ci firi bu ñuy jéem a firi sootu fatiha firi woon nañu rabbul alamin waxoon nañu aslaf ci maani yi nga xam ne moom la rabbul alamin ëmb xam nga ni itam jàngoon nañu tawxid jooji رب العالمين أمبو تمي توحيد الربوبية لله تعالى ولم يعمل نمي توحيد الربوبية نت جن كي جاني عندي ولو لب لخرج المبود بأب أنا جاكم حيث أتلف له أمثلة تيكون إن شاء الله تعالى نور تمليتي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نت ناري سوريا الذي yu bokk ci suñu yàlla yi euh, ñaari turu yàlla yoo xam ne dañuy wone ci suñu borom yàlla dafa bari yërmande lool yërmandeem ji dafa yaatu lool dafa lambe lépp ak ñëpp ak fépp sama yàlla yërmandeem ji lambe na yéefar yi ak jullit yi yàlla yërëm na yéefar yi yërëm na jullit yi yërëm na ñu baax yërëm ñi bon yërëm ñi topp ndigalam yërëm ñi moy ndigalam yërmandeem ji lam am àgg na ba ci bàyyi nañu ay ba ci bàyyi nañu sax yërmandeem ji sàkk na ci ab lëf indi ko ci diggante ñi baax ba loolu ci la ndey di yërëme doom ci la baay bi yërëme doom ci la maam mu jigéen bi yërëme ab sëtam da ci bàyyi may sax ci la ndey di yërëm seeni doom nga gis bàyyi na bu jigéen ba waa ñuy sàmm ñin nañu bu baax a baax gis aw nag wala xar muy nampal sëll yi di nàmp wala mbuut si ndey bi di ko maral gannaaw bi di ko maral pasare eh, bi bu seetlu ngeen loolu la loolu yërmande la ca xolub ndey ja xolub nag wa ñenn nag li nga xam ne dañ koo dañoo jël doom bi wala dafa wët mu bàyyi fa doom bi te day door a juub da ngeen ma ni muy nàññi nàññi bëgg a gis doomam doom bi di nàññi bëgg gis ndeyam yéen mën a yàlla moo ko ca xolu nawa te lu bokk la ci yëmali sans yàlla loolu moo lay won ne saa borom yàlla yërmande jim yërëm ab jaamam ak bëgg jim ko bëgg moo raw yërmande ak mbëggeel bi nga xam ne bii moom la baay ak yaay bëgg seen doom moom la maam mu jigéen bëgg te yërëm ko sa sëtam ba maam mu jigéen siiwe na yàq ak sëtam ndax ñewante ko ak bëgg ko waaye li koy bëgg bëgg bëggeelam googa ne ca ba xam nga ne defu ko ci yàllaa ko ca def yàlla ngir yërëm ko mu yërëm sët bi moo tax mu fab cofeel bu rëy rëy rëy defal ko ca xolub maam ja maam ja bëgg ko di ko di ko di ko yërëm yàlla yërëm gu mu yërëm doomu aadama moo tax mu fab a def lu bokk ci mbëggeelam defal ko ca xolub baay baay day yërëm doom bi leen lu bokk ci ab mbëggeelam def ca xolub ndey xam lu bokk a ab mbëggeelam moom yàlla mu màggam def ca xolub maam mu jigéen kenn ku ne ci ñii dafa yoroon doomam ak sëtam kon kenn ku ne ci ñii yërmande da nga am ca sa doom ak sa sët ak lëf la lu bokk ci yërmande yàlla ji mu yërëm jaamam yi ak lëf la lu bokk ci cofeel bu yàlla am ci jaamam yi loolu nag mat naa xam war nan koo xam ñu jullit ñi bokk te sant ci yàlla bu baax te bëgg yàlla comme ni mënu bëgg te bokk na ci mandarga yi yërmande bu yàlla yërëm jaam ñi ak cofeel bu mu am ci ñoom woo bu mu muy faral di woo ko julli nokki jullit xol leen julli lan la ak xol leen saa boo toogee tuuti rek yàlla ne kaay julli waaw kaay julli day wone ak mbëggeel mën naa ko misaal walillahi masalul aala mën naa ko misaal ci baay boo xam ne dafa amoon doom te lu nii rek mu woo ko woote bu bari bi bàyyi di woo doomam mbëggal bu ko bëgg lay woon te mbëggal googu moo ngi ñu mën a ñooy ànd mu ngoog julli boo ko seetloo ëmb na jokk bu jaam bi di jokk ci boroomam nangami minute juróom-ñaari minute wala fukki minute xasaba julli gi ak ci julli te jokk googu day am ci cër yépp xol bi nag moo ci war a ëppale xol bi day ci yàlla teewlu teewlu ne yow da taxaw ci kanamu saa yàlla lammiñ wi di wax yàlla subhanahu wa taala ci fatiha ak si aay yi ngay jàng ak ci azkar yi ngay def ci rukuu ak sujud ak ak saaya cër bu nekk am na nu muy jokkoo ci yàlla ci julli bët bi dañ ne nanga ko teg ci ngay sujud foofu la bët bi di gisee yàlla subhanahu wa taala du ko gis yàlla kenn du gis ci àdduna bi maanaam foofu la julleem nekk booy taxawee di julli ñaanal ñu na nga teg dën eh, ñaar loxo yi ci kaw dënn bi loxoom nga jóg loxo càmmoñ jiitu féete suuf comme nga jóg féete kaw loolu may wàllu loxo yi ci julli gi ci boobu jamono da nga ba nga si jóotee da nga toogee am na lu mu war a def ci julli gi kon sa jëmm lépp ay jokkoog yàlla saw làmmiñ tam di tudd ay azkar ak i ak i ak i ñaan ak i ak i màggal yàlla ak i fas yoo xam ne ci ay mbóot wàcc ci xolu jullit bi yàlla rek nga xam ne mu toll ba noppi nag ñaan yi nekk ci julli nga xam ne ñaan gi gën a foor nga moy li gëna mëna mën jëriñ nit ci àdduna ak ci àllaaxira sa mo dig nit yàlla nuko yàlla bañ nga gis na borom yàlla mëne ci julli na ma ñaanu njub sey tam rakka bu ne na mako sa ñaan yàlla nuko yàlla may njub xam nga ni bii bur bëgg na nañu xam nga ne bii buur yërëm nañu kon boo ko coot ca grand place ba ñi nodd allahu akbar hayya ala al falaax ñëwal ci julli bi ñëwal ci mucc bi ñëwal ci xey mu tok di waxtan rek wala mu tok ci kërëm julli siwul ci jàkka ji ci amul benn benn benn feebar bu ko gàllankoor kooku dafa yëgu luy julli dafa xamul luy julli dafa xamul ne boroomam a koy woote day woo ko noddee sa borom yàlla moo lay woote bay bëgg day wala lu dul bëgg la day wala lu dul kaay ñaan ma ma may la jullit bi ku koy jëriñoo yow soo demee yaa koy jëriñoo soo demut yaa ci xala ñàkkeel kàrtu yàlla dañoo bëgg yàlla danoo yërëm moo tax nu war a bëgg yàlla moo tax ab jullit boo xam ne bii dina xalaat ci julli te dina julli julli gi war faw mu bëgg yàlla su bëggul yàlla rek kon day julli te fekk julli gi liy ruu bi ruu bi ñëwul te mooy teewlu ak xam ne ngay wax ak maani yi moo tax kenn ku nekk ci ñun su dee julli te julli gi deful ci moom ak bëgg yàlla war na sax muy ñaan yàlla ci biir julleem di ko wax yàlla may ma ma bëgg la am na ay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan jàngal ko xeet bi man koo ñaan ci julli ak ci du julli ñaan yooyu day ñaan yow nga bëgg yàlla اللهم إني اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي من الماء البارد على الظمأ ولا والماء البارد على الظمأ يسعى برنا لما عندنا يعني لن ما ما بقى ak ñaan la bu yonent bi jox sallallahu alayhi wa xam naa danoo juum waaye dañ ko war na bind indaal taxaram ci biir mbooloo bi yow suñu borom yàlla yàlla mag ma may ma bëgg la te yàlla nag ma may yàlla nag ma may ma bëgg la mbëggeel goo xam ne day ëpp mbëggeel bi ma bëgg sama bopp ëpp mbëggeel bëgg sama njaboot ak sama wéjur ëpp mbëggeel bi nga xam ne bii moom laa bëgg ndox mu sedd xam nga ne boo maree da ngay soxla ndox mu sedd da nga koy bëgg ngay ñaan yàlla mu may leen nga bëgg ko moom yàlla mbëggeel gu ëpp gi nga bëgg ndox mu sedd ñaan googu ak lu demee ne allahuma jaal xubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa maali wa waladi ak allahuma allahuma اجعلني احبك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك يا يالا ما جي لين ñaan nga may ma bëgg la ci yàlla nga may ma bëgg képp ku la bëgg ci yàlla nga may ma bëgg jëpp jëpp bi tax ma bëgg la kon nag da ngay bëgg yàlla yàlla da laa war a gënal sa bopp gënal la sa njaboot gënal la sa dee sa baay gënal la sa sëriñ waaye nag ñu bàyyi xel tam ni bu fekkee ne bii da ngaa bëgg ku bëgg yàlla maanaam da ngaa bëgg sa sëriñ ndax dafa bëgg yàlla am nga xarit ku bëgg yàlla dëgg-dëgg ku mu gis mu bëgg yàlla da koy bëgg waaye nag moytu la bëgg mindaafam moo xam ab xarit la moo xam sëriñ wala leeg baay ba mbëggeel gi faf ëpp mbëggeel gi bëgg yàlla kooku su boobaa sirk mahabba lay doon ci am na shirk fil mahabba xëy na dañ ci àgg incha allah yal na yàlla may tawfiq ñu àgg ci feeyaru ko shirk fil mahabba mooy nga bëgg sa sëriñ masalan sa feel goo xam ne bii dafa mujj li nga doon def ngir yàlla lépp nga di ko def ngir sa sëriñ ba nga xam ne bii li ngay def yow defetoo ko yàlla yow daal jëfetoo yàlla dara sëñ bi rek nga joteel li ngay def sëñ bee tax wut kontaan sëñ bi moom ngay def li ngay def lépp loolu boo fa àggee siif ngay def léegi da ngay def doo am dara ndax sëñ bi mu mënu laa jël mënu laa lor loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax ala kulli xaal mbëggeel boobu nga xam ne moom la ñu yàlla bëgg li ñu ko war a tey may bëgg ko moom yàlla subhanahu wa taala suñu yëgul safeel ci yàlla ñaan ko mu may nu ko julleegu noonu kon di ay jamono yoo xam ne da nga koy taxaw ci kanamu sa borom yàlla jox ko ak moom ñaan di ko ñaan te soxla pour la soxla sakaraatu nag soxla si gën a mag soxla si nga xam ne boo amee rek la am faju xaaju adduna ak àllaaxira te mooy am njub kaay ñaan na ko moo am ci am te sañ te man bu la nee kaay ma kaay ñaan ma boo ñaanee mu la war ngaa war na la wóor ne sax boo ñaanee mu may la kon a xam julli kaay ñaan ma ma may la kaay musu ma musal la kaay sàkku ci man ceelaay ma ma yiir la yal na nu yàlla may tawfiq nu julli ci waxtu yi ca mbooloom waaw su ko defee seetloo koo xam ne ci dafa bu toll ni li nit di julli ci bis la ba wàññee julli dina bari lool dana ëpp fukk ak juróom fukki ak juróom farata euh, kon julli yooyu lu ñu baree baay bi woo doom lu toll noonu ci benn gis li ñuy tegte mooy baay bii daa bëgg doom baay bii dafa am ñeewante ci doom bi lillahi masalul ala yàlla moom jom mas naag bi am doom yàlla amul doom amul baay amul wéjur amul soxna waaye moom buur la boo xam ne bii dafa bëgg ay jaamam te da leen ñeewante ñeewante bu ëpp nga xam ne bii moom la baay ak ndey ak maam ñeewante te bëgg ko seeni doom ak seeni sët kon boog li war moo yàlla moom mu xam ko li war mooy yàlla ma nu bëgg ko te bu ñuy julli ñu teewlu bu baax a baax lu julli ëmb kon na ku nekk ci yéen sase naa ko sase naa ko feeg weer weer laa wax bépp baat bu ñuy waxati julli na fexe ndax mu ñuy teg fatiha ak saar yi ñuy faral di julle ak mboolem alkaar yi wax ci rukoo ak ci sujjóot ak ci kaaya ma ngoog ak ci xunóot lépp na fexe na xam lu ñuy teg balaa weer incha allah taala yéen incha allah booy julli asalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag li des rek balaa ñuy àgg ci tawxiid bi nekk ci arrahmaan arrahim li des mooy ñu xam le ne yërmande jooju sa borom yàlla yërëm jaam yi nag ñaari xeeti yërmande la yërmande yoo xam ne ji yërmande àdduna la moom sax la sirikati wala fi li sore arrahman foofu ñëpp fa ko bokk yéefar ak jullit ak ñëpp a ci yem ak yërmande joo xam ne ji yërmande alaxira la yërmande alaxira nag moom ñu ko moom yàlla da koo wax ci alquran ñi yërëm ci alaxira mooy ñan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 ñoom day dañuy moytu lu ma dañ na moytu ci adduna lu may lu may merloo te dañuy góorgóorlu ci li ma leen sant di ko def ñi nga xam ne dañ maa dañoo ragal sama mer di ko daw te kuy doon mu doon yàlla ñaari yëf nga koy dawee def lim la sant sa kem kàttan bàyyi liñ la tere ba furru ñu ne ñi nga xam ne dañuy def loolu te dañoo fonk asaka di ko joxe te itam ñoom gëm nañ bu baax a baax a baax alquran ak sunna mu wax ñooñu laa dégg sama yërmande ëllëg yàlla ci yàlla boole mu ngoog ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne ñu dañu topp ab yonant yonant boo xam ne di jàngul te mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent xam ne aw turam mi ngi ci tawra mi ngi ci injil yonent boobu nga xam ne day sant yahud yi ak nasaraan yi ci ci alquran di ñëw da leen ciy lu baax di leen tere lépp lu bon ci eh, yewwi yeneen yenn ci diis diis yi nga xam ne moom la amoon ci seen jiir yu jëkk ya di leen tekkil di leen yewwil ay jënd yoo xam ne bi maanaam di leen dindil ay jafe-jafe yoo xam ne dafa amoon seen diine ndax te diine yahut ak diine nasaraan dafa am ay santaan yu ca nekk yu diis sayidna muhammad nag moom sallallahu alayhi wa sallam diine ji mu andi dara ci lu diis nekku ci mu ngoog dara ci lu diis nekku ci maa jaala alaykum fi diini min xaraj mu ngoog

yeew yu metti yuñ seen diine di dëkk de yeewante mooy yahudi ak nasaani ya ñi nga xam ne dañuy topp yonent boobu bii yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngoog mu ne nag ñi nga xam ne gëm nañu ko alladina amanu bihi ñi nga xam ne gëm nañ sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam waaw wa azzaruhu te itam ñu dañ koo wet wa nasaruhu te nangu koo dimbali ñi nga xam ne gëm nañ sayidna muhammad topp leer ji ñu wàcce ci moom mu ngoog weer leer ji ñu wàcce sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy alquran ak sunna xeeboo nga ne mooy alquran ak sunna ndax sunna dañ ko wàcce ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam xeeboo nga ne mooy alquran te alquran tam dafa ëmb sunna kenn ndaw ci saxaaba yi moo wax ne moom xadis bu nekk gis na ko ci alquran xadis yëpp yëpp yëpp ju wér rek gis na ko ci alquran ñu ko nan mu ne ma ataakum ar rasulu fa xuduhu wa ma naakum anhu fantahu moo dugal mboole ahadisa rasul sallallahu alayhi wasallam ngom yi nga xamni bo gëm ni muhammad sallallahu alayhi wasallam top leer gi mu andi te moy te moy wala gi ñu wàcc ci mom te mooy alquran ak sunna te dañ koo wet dañoo wet sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di ko dindi lay def wala wax na ñoom ñooñu seen aajo bi aajo bi faju ci àllaaxira te ak ci àdduna yàlla yàlla may loolu kon doo kenn ku nekk ci ñun na sa mbaxam ndax gëm na sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammad ak li mu andi samay sunna ak alquran sayidina muhammad ak sëriñam kan la ci gën a gëm il faut nga seet loolu sayidina muhammad nga gën a gëm sa sëriñ wala sa sëriñ nga gën a gëm sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fan yële passé dafa am ku ma doon nekk ne dafa am jigéen di seex ñaari seex kenn ko ñu tudde ko muhammad kenn ko ñu tudde ko seen jiw du mu tudd tur wa nee na nit ñi daal di ñëw ci seex yi suñ tuddee seen jiw ñëpp fab ko yóbbu ko ci barkeelu ci moom xëy ci dem Muhammad ku sa des ko kenn faalu xam ngeen loolu lu rag la lu bon la lu ñaaw la te kéefar la loolu sax kilifa yi diine war nañ cee wax ndax ab julit bu demee ba ab sëriñ gënal ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñu lim gisatu ko sëriñ xamuñ ci dara loolu nag dafa mat a leeral bu baax julit ñu xam ne سيدا محمد ولا ورجل انت سبي اتلاك تبعي اقوى اكو تهيك ولا جمت ويالو طيب. لا لا انت على محمد صلى الله عليه وسلم كان دا يو جلد ورلا وخال بحب ده جميل محمد صلى الله عليه وسلم سوغو جميع دون كوي بد جبن دون الله سنبي اكسا باي اكسا بطف اكسا يدوم اجلت اكسا بسير جلت فيت نينيك محمد دون الله بقوك بقوك بقوك بقوك بقوك بقوك kon moom yooyu nit di seetal nga xam ndax bëgg nga muhammad sallallahu alayhi wa sallam seetal nga xam ndax wet nga muhammad sallallahu alayhi wa sallam seetal nga xam ndax yaa ngi dimbali muhammad yow may déglu looy looy dimbalee sayidna muhammad ci diineen bi alayhi salatu wassalam li nga mën a dimbalee muhammad ci diineen bi ci ñaar yi fekk la benn benn nga jëfe alquran ak sunnaam foo toll di samoon kat li alquran santaane ndax moom li wàcc ci moom ak sunnaam nga di ko jëfe ba noppi tam di ci woot loolu mooy li ngay dimbalee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci woo nit ñi ñëpp ñu tënku ci alquran ak sunna lépp lu wuuteeg alquran ak sunna ci seen i pas-pas mbaa seen i jikko mbaa seen i jëflante mbaa seen i jaamu yàlla lépp ñu bind ko sànni ca àll ba fexe ba am ak dëppoo gu ma sëkk ak alquran ak sunna loolu mooy ci gëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam ñooñu la yàlla dencal falaax ci adduna ak alaax yàlla ñu ci yàlla boole su defee kon ñëw ci li nga xam ne moo nekk ci saar yi gannaaw bu ñu leeralee ne rahmaan rahim lépp yërmande la saaru fatiha lépp yërmande la islam tam xisaa yi benn par benn lépp yërmande la sayidna muhammad ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yërmande la yàlla nee na wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow muhammad yónniwu ma la lu mu yërmande la lépp loo santaane yërmande la lépp loo tere yërmande la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yaa ayuha nnaas innama ana rahmatun muhdaa yéen nit ñi man yërmande yàlla laa di leen yàlla may ngir mën a jógal dafay bàyyi di sàcc yeneen yoo xam ne yonent bi xamul yàlla santaane wu ko ci alquran wu ko ci sunna kon boo demee sa kanam yàlla lay lay ak ndax kon doo perte da nga perte ndax coono ngay dëkk adduna wala xëy ak dem naari jahannam amin ci yàlla musal ba noppi nag ar rahim ëmb na tawxid jooju ñuy wax tawxidu zaati wa sifaati wal asma sañu xaaj tawxidu zaati mooy lan تبارك وتعالى وانه عز وجل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده توحيد الذات وين الذم يلا ام لا جنم دي تبدا ام لا جيسوكو موسوكو غيس واي سيون ام لا ما نانغوكو تاي دي گم ني موم كين لا سي جنم دي گم ني موم nga gëm ni moom kese mooy ki xam xaybu xam na xam na xew xam na li nëbbu xam na li feeñ aha rabba kulli shay'in wa maliku nga gëm la ilaha illa huwa wala rabba ghayru nga gëm ne moom yàlla moomu mooy borom lépp te moom moom lépp ak tëpp ak ne yàlla moomu xam na sàkk yaa moom ma ngoog te itam ne yàlla moom kenn ilaa amul kenn ku yeyoo jaamu ku dul moom amul kenn tan ko moom àdduna ak àllaaxira asamaan ak suuf ku dul moom. wa annahu jalla wa ala mawsuufun bi kulli kamal. nga gëm ne itam yàlla moomu bépp melokaanu mat rek ñu ngi ci jëmmam ji tàbbi ja te wépp melokaanu manki sori na ko laalu ko fenn jugewu ko fenn loolu mooy tawxidu daati ba tawxidu daati tawxidu sifaat nag mooy lan. mooy nga gëm ni saa borom yàlla am na ay tur am na itam ay melokaan te tur ya dafa kawe melokaan itam dafa kawe wala tushriku ghayrahu fiha wala tata'awwaluha fata'assiluha te itam nga gëm ni yàlla moom melokaanam yooyu ak turam yooyu moom rek moo na mel melokaani sa borom yàlla yi nga xam ne moom la am te alquran tudd ko sunna sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd ko dañ ko koy bañ a boole kenn di gëm ne melokaani yàlla rek moo na mel ba noppi nag melokaan yooyu ak tur yooyu nga bañ caa ta'wil dara bañ caa ta'wil bañ caa tamsil bañ caa mooy suñu borom yàlla nga xam aw turam wala melokaanam nga dem di ko firee neneen am na xam ne dañoo wax ne wa jaa rabbuka wal malaku yawma idin saffan saffa jooju ñi suñu borom yàlla di wax ni bu yawmal qiyaamate day ñu ne yàlla du ñëw yàlla loolu koo xam ne si makaan barab da koy ëmb waaw yàlla du ñëw kay boo ko la fayee weddi nga alquran weddi nga laay ja weddi loolu mooy taasilul nas loolu bàkkaar bu réy boo xam ne bi daa moo tax mooy taasil bu ko defee taasil bi nag mooy andi tawil boo nee du ñëw kon da nga firee eh, wajaa ji leneen leneen lañ koy firee mooy da ngaa da ngaa ko leneen bu njëkk bi da nga koo nurale ak mindaafoon moo tax boo gisee nga taatil mooy da nga koo nurale ak mindaafoon da ngaa jàpp yàlla yàlla ak ñëw mooy doon ñëw mindaafoon dañuy nuroo nga ko a nurale ak mindaafoon kooku la nurale yàlla ak mindaafoon tasbih la bañ koo nurale ak mindaafoon ba tax nga firee baat bi wala melokaat yi weneen tawil la tasbih ak tawil dara na baaxut dara na baaxut mu ngoog tamsil ak taatil dara baaxut mooy tasbih ak tawil yooyu nag kon li mu war a def moy mu gëm ni yàlla mo xam ni manam waja rabbu mo xam ni manam al ali nga gëm ko ni mu ko waxe rek sa bañ a dugg ci na mu nan la koy defal ah فأنت إنما تثبت لله bu ko defee nga gëm rek ni saa borom yàlla dëkk ci melokaan bu mu saxalal boppam ci alquran ni ci ala al arsh istawa yem moo na ca kaw arsam ga ولا وجاء ربك يلا بينو ولا لي ننت يلا محمد صلى الله عليه وسلم الله نه بو خمنا دي دم نين بو بودي لا خاج كو نيت خاج نياري وي بن بي دك يلا بي واتي با سي اسمان سي نيت سي دي واخ ني دي نلو نان لين انا كو ام ادي نيو ماي فوكو نان لا يلا دي واتي سي كو اسمان دمل نيا يلا دي واتي لا واخ نكو واي بو جي با خلاص با خم نان لاي واتي دمل نيا يلا ني يم مو عرش ndax wax na ko waaye bul jéem a dugg ci ay détail di jéem a xam ba xam yàlla nan lay wàcc ci kaw arab da ngay saxalal yàlla li mu saxal ci boppam wala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam saxalal ko ci ay melokaan te weddi ci yàlla jombala ci moom lépp loo xam ne dàq na ko ci ay melokaan ne yii moom melokaan yi moom meluma ko wala sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam dàq ko wax ne melokaan yi yàlla yàlla melu ni loolu da lay gëm ne yàlla melul noona da ngay saxal ni ñi yàlla wax boppam ne noonu la mel wala sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam wax ne yàlla noonu la mel ci sunnaam da ngay gëm ne yàlla mel na noona ne mu ne melu na yàlla ne melul nangam ak nangam nga gëm ne melul noona sayidna muhammad ne yàlla melul nangam ak nangam nga gëm ne melul noona aha sun borom yàlla andi na af lëf ci ay melokaanam ci aay yu bari ma indi ci wenn saaro wu gàtt صوت الإخلاص لا نحن خمني شكي سنين دي جلية سجل الإخلاص لمن كو تيرو قل وخل يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخل يوم جلية دي نال هو الله يلا أحد كان لا كان لا تجمم جمم رتا يلا كان لا تملكان لي كان لا تكرني الله يلا الصمد ما يكنيب جبلو دوكا جاني ñepp jublu ko di soxla ci moom te moom soxla wu kenn dara di fa jël ñepp jël aajo xewam amul aajo ba kenn du ko fajal ñëpp ñu ngi ci moom di ko ñaan seen soxla mu leen koy may lam yeli yàlla moomu jurul amul doom loolu nga xam ne moom la chrétien yi di wax naan insa doom yàlla bi dañuy san yàlla amul doom lam yelid yàlla yàlla jurul walam yuulad te kenn juru ko yàlla amul baay amul ndey amul maam amul mbokk walam yakun lahu kufuwan ahadun ci yàlla itam du nawle kenn du moroom mu kenn loolu mooy qul huwallahu ahad fii maa ngoog dafa wéetal yàlla bu baax ñu ko jàpp te mokkal nga mhm. gëm ne yàlla moom benn buur la amul kenn kuy buur ku dul moom waxtaan wi képp koo xam ne itteel na ko su ko ñaanee Maodo Diagne dana ko ko may insha allah taala mu dégluwaat ko beneen yoon ndax mën a firi qul wallahu bi julli yàlla na yàlla may tawfiq leeral ba mu leer nga gëm ni kan du ilaah kan lu doonul koo xam ne war na koo jaamu te soo ko jaamuwul ñàkk jaamu gi da nga ci loru te soo ko jaamoo jaamu gi da nga ci am njëriñ kooku yàlla rek du keneen la gën yàlla moomu amul njariñ yàlla amu njariñ gën ta kenn sa kenn du yàlla ku dul moom gën ak sëriñ kenn du yàlla maa ngi leen fi doon ñett li aji mu di paase jigéen ju bon fecckat bu bon euh, euh, euh, aw wëndëng mu bon wa dem kenn ci ñii tudd ay sëriñ naan ko yàlla ma xam nga ne kooku rey rek ci gënoon fa saako waaye suñu Sénégal bi lu bon lu ne na fee ñëw ndax yu bon bu ci am ci xeetu sirk تكلف ديني من شو أخبار يقول دي مهم فهم الذي شو لقطة ولا فهم وخو جنل لول درجرو يلا أمون جن كتن في الله كدر مهم سن بفوت المهم مرض ها ها يلا بني جن أمو سخنة سيتم بكلم جودي دار بكلم جودي كن مهم رك خمهم يقول أسمان الكوف يلا رك خمهم يقول أدنى الله خير يلا رك خمهم تمام زوج ما في الله جفر جين كل يلا جامو يلا جف شلون يلا جنك سيدي ليجي يلا جي وي بكرة بولا خرام بدل أقوى من aha gëm na yàlla moom mooy ci fi nekkoon bi fi dara nekkagul bi dara nekkagul sàkkagul jant bi sàkkagul weer wi sàkkagul aadama ak awa nit amagul kenn amagul moom rek moom mi ngi fi woon te itam moo fi def ba faw du fi jógee mukk dana am ay jamono nit ñëpp dañuy dee waaye yàlla nga fi nag aha te itam mooy ci feeñ féete kaw lépp mooy ci biiree mu nga féete biir lépp aha jiitu gum ci jiitu mi ndaa fan yi amul fu tàmbalee yàlla naka jekk dafay mosane kenn dina yàlla ku ko sàkk ndax ku soxla ko sàkk mooy ci amagul yàlla moom daa bokk ci ay melokaanam amul yenn jamono yoo xam ne amagul woon bañ di ko sàkk yàlla naka jekk dafay mosane xadim la loolu li muy tekk mooy moom nuróowul ak mi ndaa fan yi laysa li awwaliyatihi ibtidaa'un jiitu gum ci jiitu lépp amul fu tàmbalee ولا لآخريته انقضاء مجد في مجد يكتم أمون في مطامبلة أمزيان في أمزيان ومن تفي النقضة في مطمئن نتنك جت تدفي النقضة فاو أها نبقى من الطابور يا الله وحن ممل دين كما روح مف دين وحن من ذلك باي طيب نيك من توحن دواء يا الله مل أها ولا يفيق بأمره المتحدث سيتم أي مرم يري الله kon bok ñom nu ngi ñu ko xam rek aha ya'tadiru mutafakkiruna bi ayati kuy xalaat kay ci yàlla xanaa da ngay xalaat ci mandargay amam da ngay xalaat ci mandargay xam-xamam gu rëy da ngay xalaat ci mandargam kàttanam gu rëy boo dee xalaat ci sa bopp na benn kaset ma defoon ci at yële paase na lool xale yi génne waat nañ ko ba def ci net bi muy wax adillatu wujudil baari tegtal yi woon yàlla mu subhanahu wa taala di wane ne nit ñi dégg di gis di jooy di ree di kontaan di nar nit moomu di dégg di gis nit moomu li ko yàlla defare mooy ay suukar ak ay xorom ak ay carbone ak ay mila mawjudaat yu ndaw yoo xam ne mu kawinaat la yoo xam ne ñoo defar alxaliya alxaliya wala al adamiya wala alxaliya alxaya muy cellule vivante yàlla defar ko ci lim ko defaree dundul amul xel te cellules yooyu ñoom di liggéey liggéey boo xam ne ñu kon boog yàlla xoolee nas bi mu nas doomu aadama moo dëppoo ku ñuy wax aussi anfusikum ñu ngi wax afalaat afalaat tubsiruun boo xoolee yëpp bi mu yëpp bindu doomu aadama xool yëpp bi yëpp asamaan ak ak ak suuf si suuf si ni muy dawee bi ak ni muy dawee di wër boppam euh, boo ko xoolee yooyu mën na nga xam ne ci doon def lii ku am xam-xam la ku am kàttan la te nga xam ne ci kenn la loolu ngay def booy xalaat ci yàlla da ngay xalaat ci mandargay kattanam mandargay xam-xamam mandargay mu ngoog waaye doo mën a xalaat nag ci na yàlla bi moo tax ñi ne ci Sénégal ak ci adduna bi di wax naa dañuy gis yàlla dañuy kàcc gisuñu yàlla yàlla kenn du ko gis sama yàlla gisuñu loolu Seydina Muhammad moo ñu ko wax alayhi salaatu wasalaam te ku ko weddi weddi waxu Seydina Muhammad waxe Seydina Muhammad ku ko weddi gisee soo dara ci njullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buy wax mbiri dajjaal te xadis baa ngi ci muslim te wér na moo ne xam leen ne du ngeen gis seen borom mukk lu jiitu ngeen di dee daañu gis yàlla bu ñu deewee bu ñu deewee waaw ci àdduna si ngay dund ju deewoo ko gis yàlla Seydina Muhammad ne mun ta am kon nag ku ne da ngay wane yàlla da ngay fen wala wet di nga waxe Seydina Muhammad ne rek nga wa sallam yàlla kenn mënu koo gis kenn mënu ko xam nu mu mel am na nag ñoo xam ne dañu ba naan yàlla day wàcc seen gëmm ñaan am nañ ay azkar azkar yi dira yoo xam ne nañu buñ ci nekkee day mujj yàlla yàlla boo laam seen jëm yàlla nga yàlla nga daj ñoo mën a fen ñoo mën a fen waay ñoo mën a fen yàlla di nekk jëm mukk loolu moom la ñuy wax xam ñu ko tudd waaye boo xoolee téere yëfu bi ak nasaraan gis ko kon mbokk loolu dafa mat a xam bu baax yàlla kenn du xalaat ci jëmmam bi kenn du ko gis kenn du ko daj ci adduna si yàlla it xam-xamam ba xam-xamam ba mënu ca xam dara lu dul la mu ca mosal te lam na ci mosal da ko wax ci alquran wax ko ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg a xam foofa ngay dem daa do dem ci ay sëriñ tappale yu lay nax di la tànk da lay wax loo xam ne yàlla waxu ko ci alquran fenn sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam waxu ko ci sunnaam ak ay xaadisam yu wér fenn mu nga loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax kursi yam ba kursi yam ba moo gën a yaatu te xajoo na euh, euh, asamaan yi ak suuf te asamaan yi yaatu yaatuwaat asamaan daal mënu ma leen ko wax xanaa mën naa ci misaal tuuti rek yow mu amoon ab ab ab avion boo xam ne day daw ci gaawaayu euh, lumière gaawaayu lumière mooy ñetti téeméeri kilomètre ci benn seconde avion boobu mën naa daw ñaari téeméeri at door a àgg ci biddiw bu ñuy wax nangam ñaari téeméeri at yi ma sëkk laa xam ngeen nit ñi sax téeméeri at avion boobu mën naa daw ñaari téeméeri at avion boo xam ne day daw ñetti téeméeri seconde ñetti téeméeri ñetti téeméeri xam ngeen ne baaw yoonu màkk xam ngeen du fi taxaw taxaw feet màkk juróom benn junni kilomètre lañu tafal boo ko jaayee ci jaww ji boo yoroon avion bu boobu mën naa daw wuti benn biddiw da am téeméer ñaari téeméeri ak te du am ci guddi booba te loolu bi maanaam di yaxalugul asamaan ci asamaan loolu mooy asamaan dafa yaatu lool ba mu ëpp mu ngoog bu ko defee nag asamaan si li muy yaatu yaatu kursi yoo ko ëmb te kursi nag moom mu ngoog ma nga yemoo ko arasam aha te itam asamaan yaatu yaatu ak aras ak ak aras lépp li muy yaatu yaatu taxul dara ump ci yàlla te itam garde ko tëwu ko jaaxalul yàlla yàlla garde boppam yàlla mooy ku kawe ci mooy ku mag ci loolu ngi bokk ci àgg suuf li may wax nii maa ngi ko jël ci risaala risaala aju di al xayrawaa bi ñii moo tawxidu zaat bi muy wax ak melokaanam ñii aha yàlla mooy ki xam ci dañ kumpa lépp dara ump yàlla mooy ci doxal mbir ku war a dund ku war a dee ku war a am ku war a ñàkk ku war a ku ku war a am soxna sànq sa kañ lay am doom kañ lay génn adduna ndax da nga amaat beneen soxna ñaata doom ngeen am ku war a am wërsëg kuy gàtt wërsëg kuy gudd fan kuy gàtt fan kuy feebar feebar bi lan lay doon lu koy waral lépp la yàq yoon ci loo xam ne ko defal boppam bàyyi ko ko sen bàyyi ko ko sëriñ bàyyi ko ko jabar bàyyi ko ko sariya bàyyi ko ko nit wala jinne wala malaaka moom kese mooy mu dabbirul umur di ko doxal lépp ni mu ko bëgg aha yàlla mooy ki nga xam ne ci day dégg lépp day dégg lépp day dégg bay dégg sa xol bi ñu koy yénee ci ay xalaat waxu xol nit ci daf ñu ngi yëngoo de déedéet xalaat yi ngay xalaat yàlla da koy dégg di ko gis di ko xam aha yàlla mooy ki nga xam ne ki day dégg tey day gis mu ngoog te gisam ba ah te itam mooy mooy ku kawe ki te mooy ku mag ki itam aha yàlla moom mu xam ne doomu aadama ndax moo ko sakk moom ni mu ko wax suutu kaaf ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه من يلا نو ساك نيت تايتام خمنا لي يل يل تبخلم yàlla waxumaag li wax li nga koy li ngay def ñu ngi koy gis waaye nekk ci nga xalaat ñu ngi koy gis di ko dégg xam na ko aha te itam yàlla a doon li nga xam ne yàlla dina jege sa gumu xol xol ba yàlla ku la jege la doo ko bàyyi xel ci lépp looy def ak looy wax aha te itam xobu garab woo xam ne ngelaw daa ñëw ëpp garab ga garab ga jaayu wenn xob yal ca dagg wadd ci digg man ngi a fu mu mën a wadd yàlla xam na ko bépp xobu garab bu wàcc ci fenn ak bu ak fu mu mën doon réew mu mën a doon dëkk bu mu a doon àll bu mu a doon yàlla xam na ko amul aw xobu garab buy wàcc wala ab pepp bu nekk ci biir suuf xam nga ne suuf boo ko baye day jiw ñax bu baree baree bare yoo xam jiw yooyee loo xam ne jiw loo xam ne doomu aadama ko ji di ko doom gerte wala doom dugub ba dugal ci tooba fu doomu jiw nekk fu ab doom nekk war a sax yàlla xam na fu nit nekk ku ñu suul yàlla xam na ko amul lenn luy tooy wala luy wow dara du yàlla boole na xam ko ak bind ko ci ab téere bu mag boo xam ne mooy lawxul maxfuus yàlla na yàlla jéggal sunuy bàkkaar yàlla moo waxal boppam ne yem moo na ca kaw arsh ba aras mi jàngu jëm bu mag googee nga xam ne ay balaataa ko yëngu nee na yem moo ne ca kaw aras ga aha seytan moom nguur gi lépp moo ko moom moo ko yoral boppam yàlla nguuram gi xajalu ci kenn bokk ko kenn moom rek kay yàlla moom rek kay def moom rek kay dindi moom rek kay yor njëriñ ak ñu ko dul moom lii faw nga gëm ko mu dëkk ci xol bi nga di ko fanaanoo di ko yendoo di ko naraale di ko kontaanaale di ko feebaraale di ko wiraale mbaa seen bi lu du mën a aha yàlla moom moom suñu rafet yi ak melokaan yu kawe yi aha te itam mboolem melokaan yàlla yu rafet yi nga xam ne yàlla tudd na ko ci boppam ci alquran wala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd ko ci sunnaam melokaanam yooyu naka jekk daa mos di nekk ci moom yàlla nigul ba tey muy joora am melokaan yooyu naka jekk yàlla xaaliq la woon تفك المخلوق أم دلول يا رب لو أنت فك المخلوق أم دلول يمنك محمي الموتى تفك موتى أم دلول تعالى أن تكون يا الله جنب أنت نجمين داف جنب أنت ناك اي لك أنا جدون نصفه ولا تري جرنا جدون لا خدم له بيأكله آه ونثبت له تعالى من الصفات كل ما أثبتتها نصوص الكتاب والسنة بقدر أنك نخم يدنا وراء تحلل يا الله أين لك أنا ni alquran ak sunna saxal te bañ caa dolli bañ caa yokk bañ caa soppi dañuy nangu ne yàlla ni mu mel mooy ni mu melale boppam ci alquran ak ni ko sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam melale ci sunnaam aha te bañ koo ñëw leen ni ndaa ko bañ a wax ne bu fekkee suñu borom yàlla dafa wax bal yadaahu mabsuutataani ñaari loxo yi yàlla ma nga mu sàllal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla day sàllal loxo pour ku bëgg a tuub ku a tuub fee jant bi so yàlla nga tàllal loxo bi wax tuub mu jéggal la ay waay yàlla yàlla muy ak tuub waay bu guddee mu tàllal loxo bu sedd bi di wax kaay tuub balaa bëreset ma jéggal la ay waay biñu jël jëfete jóg leen waay te jaamu yàlla te julli te ñaan ko te te tuubal ko te ñaan ko njub yàlla ñu ko yàlla may loxoom boobee yonent bi tudd wala ñu tudd ko moom yàlla subhanahu wa taala dañuy gëm ne am na waaye dañ leen di wax naan ah, yàlla amatul loxo ndax kon da nga koo bëgg a ñu la loxoom ñu laafan teer ak nga wut ak ñu laafan dara aha duñu jéem a misaal neloo dara ci melokaani sa borom yàlla duñu jéem a sott dara itam du ko taay yi du ko firee neneen aha dañuy gëm ni yàlla ginnaaw nee na alal arsi stawaa yemoo na ca kaw ars ba kon dañuy gëm ne loolu am na waaye nag duñu jéem a sott ba xam nan la amee aha ndax bu ko jéemee rek daanu daanu comme misaal ak doomu aadama te yàlla jëm bant nag doomu aadama ñu rëwul ak moom dara dañuy gëm na yàlla dina ree yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax moo na ko wax nee na yàlla di ma ngay ree ci ñaari jaam ñii ab jaam bu rey moroomum jaamam ba nekk ñoom ñaar ñëpp ñu bokk dugg àjjana nee na loolu yàlla nga koy ree ab jaam boo xam ne daa ab jullit ni moom jullit boo xam ne daa rey ni moom ba nag ñoom ñaar ñëpp xam nga ne ku rey xam nga ne kon ki mu rey ki mu rey moom waxuma ci dara waaye ki ko rey moom xam nga daa dem safara loolu yàlla wax ku rey nit da ngay dem safara lu dul ci ñett ci bakkan wax ne wees na koo rey mu wante yàlla nee na moom yonent bi nee na bokk na defu nee na suñu la dina reyee su boo xam ne bi ab jullit rey na jullit bu nekk ñoom ñaar ñëpp ñu bokk dem aljanna waaye loolu dafa am lu koy waral mu ngoog dañuy gëm ne ginnaaw yeneen yàlla muhammad wax na ko dëgg la waaye dina naan yàlla moom du ree seen jublu ci loolu ndaxte yàlla kon bu ree loolu kon da ngaa bëgg a ñuul lépp yàlla ak doomu aadama moo tax nga naan yàlla seen jublu ci loolu da ngaa bëgg a dàq ree yi yàlla da ngaa bëgg a dàq noo gu mu nuroo ak doomu aadama ak doomu aadama sa jëm yi di leen gëndale bi leen ñuule bi di ko dàq moo ëpp def jëgeedal na rek yàlla reew na waaye buñ jéem a gëndale reew googu ak reew yi reew yi doomu aadama di reew ba taal yi dina ci fekk soppi dina ci fekk wala dina ko dàq dañ koy gëm rek ñu ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam te duñ jéem a xam nan lay amee ndax mun taxat ci suñu xel moo tax su ko defee ku ñu laaj ku ñu laaj dara ci melokaani sa borom yàlla ku ñu laaj ne waaw yàlla moom nan la toogee ci araf bi wala yàlla moom nan lay géggee wala yàlla moom nan lay reewee dañ lay tontu la imam malik tontu woon imam malik benn bis day jàngale am ko fa ñëw ne ko man lay imam dama doon laaj luy maanaam على العرش استوى يلا نجي موسك وعرف له سبحان الله يعني نكو واه نكو من مالك واه يلا ننلا يمو سكو عرف له معنى ننلا فطون إمام مالك نكو جن يمو دي خمنا ني أمنا ده يلا واه نكو دينا واه نكو دجلة وانك ننلا يأمي لو خمو نكو كم نكو دينا خمو te itam gën di laaj ko bidaa la ndax saxaaba yi mos na ko laaj sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yow mii nii du fitna ga yow mii nii du fitna ga daa day wax dawlee ne leen naf laa di jóg ñu day ci day tee ko euh, toppale ko foofa fépp am na yeneen xeet laaj ku koy laaj wala yeneen fas fas ku ko am ku la fekk li la war a day ci day tee kon donc ku nu laaj melokaan sa borom yàlla dañ lay tontu la may tontu woon ne melokaan bi am na waaye nan la amee nag buñ ci jéem a dugg الصحابي يفيق ولا يفيق بس ولا بدعة ونحن نعتقد انه تعالى كما وصف به نفسه من ضمن من لا البخم في القران السنه اها كيف نجيب يدك عزيز مخم من لم نلم وكان ووي من لا يري من لا توب من لا يوات لو جيب جي مخم اها فضمن النيتم لا جمل نونو بدعله شيطان نوغي في خليل نجيب أه. صحابي موسى قال جنت على محمد صلى الله عليه وسلم صحابي موسى وجه القرآن ولا السنة جل هذا الملك عن صحابة رضي الله عنهم في الدنيا نوية يا دوم تخوص بجمع خمن لي أمي جل يلا توفيق تلول أه. يلا دار من روتك لن جند لن لا دار من وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نعم شافعي إيه؟ دانا فرد وحنا من قمنا يلا قمنا يلا تيتم قمنا ملوكان صابرا يلا كلت يلا جبو لم تجيبوا نك من خومكم ولا يلا جبت ملكان يرجمنا قولنا قمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمنا ملوكان يوحنا نون يلا ملكان لم تجيبوا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لم تجب لنا من المقاخر لولا الشافعي بان واحد مؤمن وجهه دائما اها قال تعالى ولله الاسماء الحسنى انظروا يا الله واحد يسال القران ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يلا مؤمن شو يغسل في ليلة كتي و تلي كتي نيان اها فنن باين لي خمنا دني جان في كوغي يلا ني نيو ني جان في كوغي نكو باي نيوم نكو باي مؤمن يلا دينا بولا بوغل لي fay bi jàng ci ci ci yàlla yi yàlla yàlla ci jàng ci yàlla yi وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة الإلحاد الميل وترك القصد أه، مفسر مقبوبي الإمام القرطبي في من لي معنام آية دي من الإلحاد والجلد والفصل ورد الجلد لولا ما بعد الإلحاد أها dañuy wax ne nit ki jàng na ci diine su fekkee dafa jàng jëmale ko feneen fu bukk ak fa ko yàlla ko yonent jëmale yàlla ni ci yàlla musal aha mu ne nag moom xurtu bi ci tafsiram bi ñu jël aaya ji mu ne ilhaad am na ñetti xeeti ilhaad ci tur yàlla yi mu ne jégg ci tur yàlla yi am na ñetti xeet benn bi mooy soppi ko soppi ko ba des mooy dollite ba des mooy wàññite soppi ko mu joxe ci misaal mu ne yéefar yi njëkk ya tur yàlla wu ñuy wax allah dañ ko soppoon tudde ko laata al laata wut seen xërëm nag moom mooy laata beneen xërëm ñu ko tudde ko al uzay al uzza al uzza ñu ne al uzza mi ngi ci al aziz al aziz ci tur yàlla yi la bokk allah mooy alamu zaati muqaddasa mooy tur yàlla yi mu ngoog ngoog ñu ñoom nag ñu dem soppi allah def ko laata al uzza la ñuy tudde aziz al aziz ñu ko uzza almannaan nit da ko manaate tudda ko aw xëram soppi googu ñu soppi tur yàlla yi ak jàng la ilxaar la ci tur yàlla yi beneen xeeti soppi bu ci def mooy yokk ci bi ci def mooy wàññi ci yokk ci ni ci nga dem di jéem a wax turu wat nu ko yàlla mele al ali nga naan yàlla moom nekkul ci kaw ndaxte kawe bi maanaa yàlla nga ca kaw mooy maam yàlla yàlla place da koo peet te yàlla jombante nag place di ko peet loolu ëpp naa wax loolu ëpp naa wax yokk ci ak wàññi ci benn baaxu ci boo nee yàlla nekkul ci kaw kenn jubluwul ci kaw ji baatu kaw ji di gis loolu ñenn ñi wax asaar yi xaw mu ngoog ñu ne yàlla nekkul ci kaw yàlla ñu fépp yàlla tey ñu ngi ci kaw moo ko wax moo ne alal arsi stawa uluw googu nag ba na fekkee uluw la jëkk di ci dugg di ko firee nii mbaa nga di ko dàq di ko firee ne bu mu ci fekk kurti bii nee ñi nga xam ne nag dañuy wàññi turu yàlla yi wala ñi di ko yokk loolu xeeti irxaad la boo xam ne di jullit bu ne war na ko moy mooy ñu koy tamsiir di ko taafiil wala ñu koy tawil lan la wóobu cee fat كما يفعله الزهاد الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه قلت لي كتنة قم من خمنا يريني نون لجي دف دو سيني في يالله بط يلي وي يالله يبقى تفي يالله مثل بطل xam ngeen ne am na ay turi yàlla yoo xam ne ni boo ko gisee te tadrij yi yoon nañ ci doo ko fekk ci alquran turi yàlla woo xam ne ni sëriñu tariax daan koy werd ñaan turi yàlla la te boo demee ci alquran doo ko ci fekk nga dem ci waxi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo ci fekk tur woowee waaw moo kan woowu turi yàlla moom fu mu jógee lu jógewul ci alquran ak sunna te bëgg bokk ci diineen islam lu mu ciy bokke yow da ngaa bëgg wutul yàlla yeneen turu bokk ak ci li mu tuddee bopp ci alquran ak sunna nee na loolu ay juxaal ay nit ñu réer ñu koy def waaye loolu war nañ cee moytu bu baax a baax. قال ابن العربي وحلال منها ولا يدعون احدكم الا بما في كتاب الله والكتب الخمس. kon boog الامام القرطبي ba tey ñu wax nee na bul woo yàlla mukk ci wenn tur bu dul aw tur wu mu tudde boppam ci alquran mbaa ci sunna borom xam-xam bu mag beneen bu ñuy wax ibnul arabi nga xam ne ma sarxa sarxaana ma watam alquran ñu tudde ko ahkaam al quran bi ñu ñëwee ci aaya ji lan fa wax imaam Qurtubi da ko nekk ci biir waxam ji dafa wax ne imaam Qurtubi dafa wax ne arabi nee na julli bi ñu lay moytuloo bul dem di ñaan yàlla ci yeneen xeeti ñaan yu bokkut ak la yàlla jox yàlla nee na yàlla boo koy am na ay ñaan yu mu la tànnal nee bu ko fa bàyyi dem ñaan yàlla ci yeneen xeeti ñaan yi yu bokkul ñaan yi yàlla wut ñaan yi dina ci alquran wala ñaan yi sayidna muhammad alayhi salatu wasalam yàggal ci sunna nee na bul bul wut yeneen ñaan yu ñaan yu bokkut yàlla nii nee na yàlla la li mu nga ñaane ko ni noonee mu bëgg mu jox ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad jàngal la ko ci sunnaam baat ci alquran kon nag lu tax nga di ko fa bàyyi di ñaanal yàlla neneen loo xam ne da nga koy saamu bàyyi ko lala yàlla saamul da ngay tànn neneen nooy woowee yàlla ak neneen noo koy ñaane bàyyi fi ñaanin li la yàlla tànnal nee na yàlla tànnal na li nga ko ñaan rafare kon nag bu ko fi bàyyi mukk nee na itam li nga xam ne ñaanin yi ak turu yàlla yi xëy na rek la nekk في القرآن أكسي وحي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن الدفن يعني بوخم من نوي في القرآن رسل في بخاري بعلم تيري بخاري حد مسلم حد أبو داود خمنا تيري سنة لبقى وقت تفهم لك واحد من تيري سنة تيري سنة من نشيني سقي تكنا وير ما بخاري حد مسلم يعني صحيح سني أبو داود سنة دي نسائي ابن ماجه نغط mu ngoog juróomi juróomi sunan bu ko defee ibnu xibbaan mu ngoog juróom benn mu ngoog bu ko defee bu ko defee al muwatta imam malik ak ak ak muslim imam ahmad mu ngoog yooyu yooyu nga xam ne muy fukki téere yi gën a wér muy ñeenti saxiya ak ñeenti sunan ak ñaari benn muwatta ak benn musnad ne fukki téere yi gën a wér am na yeneen téere téere yooyu benn bu ci nekk ak téere yi ma yéen sax bu ci mul buxaari muslim am na ca xadis yu wér ak yu wérul waaye borom xam-xam yi tàqal nañu xadis yu wér ak yu wérul waaye ibnu arabi nee na téere yi nga xam ne daal mooy téere yi sunna yi boo leen booleeg alquran su yàlla woo gis bokkul bu ko jël aw ñaani ñaañin wuute ñëppul bu ko jël ndax islam ci téere yooyu la nekk nekkul ci beneen téere nee na islam ñu yem ci alquran ak ci téere yi nga xam ne dawaa yu sunna téere yi nga xam ne ci lañ jënd waxi sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam ak jëfam nee na bépp téere boo xam ne bi bokku ci téere yooyu bu fa jëlee dara looy jaamu yàlla mbaa lay ñaane mbaa aw tur yàlla ndaxte loolu lépp ay tawxiisiyaat la fenn du ci jëg gi dara fenn bàyyi ci yàlla wax ak ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu nga yàlla nu yàlla may ñu dégg waxi yàlla te topp ko yàlla nu yàlla may ñu tënk suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy pas-pas ak suñuy xalaat ak suñu jaam yàlla ak suñu jëflante lépp ñu tënk ko ci yàlla wax ci alquran ak li sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci sunnaam yal nañu yàlla jéggal suñuy bakkaar yal nañu yàlla baa suñuy sàggante yal nañu yàlla jubal ci yoon wu bëgg way tax ñu am pexe ci àdduna ci alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma bàyyi leen mbokk ngeen jëyoog seen borom tuuti maa ngi maa ngi maa ngi yërëmtal ci yéen di leen ñaan ngeen ñaanal ma sama borom yàlla mu jéggal ma samay bakkaar yu bari baal ma te moo fa demee keroog may taxaw ci kanamam te xam naa dinaa fa taxaw te xamul lu ma fay fekk yéen ñaanal ma su ma fay dem may taxaw ak moom ma fekk fi njëggalam ak yërmandeem ak ngërëmam te bañ faa fekk la ñaan yéen ma kii yëpp maa ngi ko sàkk wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh